Amadou Manman. WhatsApp audio. Uh, Stop the first now.

Eh, di rafetlu seen taxawaay di ko ñaanal détenu politique yi ñëpp am jàmm yàlla aar leen ci kaso yi eh, ku jamaat ak ñoom def saafula salaamaaleykum saafuli ban ni duwaati jamit ala tobro imite kalimite poyelal orolaka sumay wala do tiñanga kayre donc wala eh, mbadimandiko ala kam moylal mba kontoño ke musu dindin keba eh, mbe do ala alaye alaye mon so kayro la sima ni jata kende ni filima ni barako eh, donc mbok yi ñu ngi ñëw donc di leen jaajëfal eh, di dellusiwaat rek di fas yéene suñu kàddu ci Facebook bu pour fas yéene andi suñu waxtaan ci li nga xam mom lañu gis li nekk di dox ci réew di nuy ñëpp waaye di ñëw rek di jiital nuyu bi patriote yëpp ci li nga xam ne mooy xeex bi di rafetlu seen taxawaay. di wax ne le combat continue bu kenn teggi tànkam euh, amuñu lenn lu ñu fi bàyyi ginnaaw euh, mbokk yi di ñëw gannaaw li nga xam ne euh, moo xew gis nañu bataaxal bi nga xam ne ay ancien jiitu réew yëkkati nañ ko hmm? c'est muy bind booloo bind ñoom ñaari muy Abdou Diouf ak Abdoulaye bind di wax Macky Sall ne ko donc na wootee waxtaan ci biir waxtaan boobu

Euh, ñaar fukki fan ak juróom Sénégal loolu la mu sax xam kon dëppoowul ak respecté calendrier bi te ñoom dañuy ne Macky Sall na def kenn tulaay kattanam pour mu respecté calendrier bi waaye na respecté cha ndey charte réew mi mooy lu ñu tënk donc da ngay gis ni loolu yëpp euh, Macky Sall respecté ci benn ñoom ñi nga xam ne dañu yëkkati seen kàddu bu fekkente ne ñoom nit ñi dëggu lañu Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñoom fukki at ak ñaar ñi ngi fi gis nañu Macky Sall nu mu yore Sénégal. ci yoon bu doy bu jéggi dayoo bu doy waar ci yoon boo xam ne bés bu mu nekk mu ngi rey Sénégalais yi mu ngi faat doomi réew mi mu ngi rey Sénégalais yi waaw mu ngi leen di teg coono mu ngi leen di teg métit bés bu nekk gis nañ ko fii ak lu fi am yëpp ak li yére def Sénégalais yëpp Abdou Diouf yëkkatul kàddu woom musul wax Abdoulaye Wade kasaalika waaye léegi li ñu jaaxal mooy jékki-jékki rek jënd benn communiqué di wax ñi ñi naan mhm. di wax ñu naan wéy euh, na na na nañu respecté calendrier naka lay ab euh, euh, kii di respecté calendrier hein naka la koy respecté té yo nga ne ko mu mu organiser élection yi ci mois de nu tuddati mois mois mois de décembre bu amee fukki fan ak juróom Sénégal musul organiser élection non ben nana ko mu respecté ndey charte réew mi tey gis ngeen Macky Sall muy jalgati charte réew mi institution yépp Abdou Diouf yow Abdoulaye institution nek Sénégal yépp Macky Sall yàq na ko yow Abdou Diouf bi fi nekkee da nga fi bàyyi état bàyyi fi état bu dëgër bàyyi institution yi dëgër waye gis nga bi Abdoulaye Wade ñëwee ci la institution commencé euh, euh, soxé Macky Sall ñëw dogali institution yi amul ben institution bu baax bu nek fi ray nañu ñëpp tout légui peneen bi mooy dégg ngeen ko mu koy wax ay amnistie amnistie lan mooy amnistie oui allo oui allo. ah. Mhm. Donc, donc, oui, tu es en direct. Tu es en direct actuellement sur Facebook. Donc, l'Internet est coupé à Gigainshore. Allô? Allô? Allô? donc l'internet est coupé à Ziguinchor pour moi, wax quoi? ko coupé nañu internet bi Ziguinchor amul connexion amul internet parce que bu leen fàtte ni dembe waxon na len ni amna ay pick-up yoo xam ne dugg si nañu ngi Ziguinchor renfort bu ñëw légui nak pour ñu mën ñooñu xex bobu pour ñu bañ ko gis ci aduna bi wërngal këpp moy il faut ñu couper internet bi pour mën euh pour ñu mën def sen liggéey bu ñaaw donc euh, Bourama Kolidi oui ça va Youssouf ça va alors l'autre information bi nga l'autre que am alors euh, nous euh, informa internet et coupé coupé coupé internet ban pop fukkeen du renforcer nous les les 4 pick-up Safite Sosuro man man déployer la gendarmerie man renforcer Kuban ban jaadu ku internet budget connexion dans tout Ziguinchor alors donc euh, le peu de connaissance comme comme koy na mi kabañu wifi ci ndeyool yi ban du ko ko installé GPS et euh, VPN mbi ji mañ fo fo ni mañ bekk sanke partager live du partager live ba ne jaw di man ni ko la nak kam moy ko internet au coupé telé, l'internet internet coupé le euh mon connexion connexion surtout alors du coup nous ci balam ko nga dans dal ma tamo la ok voilà donc nous continuer suñu information alors les deux anciens présidents Abdou et Abdoulaye ils ont produit un communiqué dans lequel ils interpellent Macky pour lui demander de tout faire pour organiser des élections transparentes. Et ces élections-là, euh, vous avez vu, euh, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire parce que vous avez la, présence, euh, <laughs> l'armée sénégalaise qui circule. L'armée est là, en pleine nuit. Vous avez l'armée sénégalaise déployée, des chars de combat déployés, circule. l'armée est rentrée actuellement en Dakar armée bi dugg na voilà l'armée bon donc armée bangui circule. circulé euh, dinañ ci mhm. Alors, ok vous regardez sauvegarde vidéo bi sax balaa balaa muy dem ma protéger ko balaa muy pour nous, xam ko quoi gars yi xam pour gars yi xam li xew quoi voilà ok euh. uh-huh. temps ma sauvegarder vidéo bi bu ko defee ma denc ko quoi ok donc euh, Euh, gagne may leen mu tuuti ma euh, voilà euh, il faut me vider tuuti parce que le portable de fees je me ko defulee rek du baax bàyyi na ma vider lui quoi ma vider calvaire bien bi même là un petit portable bi quoi parce que gars tellement que dañ lay de payer, ben, finalement de do espace quoi. Il y a beaucoup de partage. C'est normal. Il faut qu'on arrive euh, Voilà. Hmm? Ok, boy kay boy boy respecter calendrier républicaine Moi, na organiser l'élection qui ci 25 février Si on a dit ki respecté les sartu na constitution bi lu a, wax amul élection élection que nous mais on a respecté le calendrier électoral bi bi nga chaque 25 février Sénégal a lay def organisation élection présidentielle Macky pousse ko décembre 15 décembre jaar euh, assemblée nationale le décret conseil constitutionnel rek moo am droit pousser élection wala ko neenal ba pare yéen Ablaye Wade ngeen bindu ko ba ne ndaw ñi nañu bàyyi toj bi ak ak yak bi ah bo légui ndaw ñi buñu xex quoi yow Abdou Diouf tok nga fi def lu la neex tay la jeunesse Sénégal dem sa yoon Ablaye Wade tok toog tay la jeunesse Sénégal def sa yoon yow ak Ablaye Wade ray rey maître Sèye ba pare ngeen def amnistie ngeen dem toog léegi Macky Sall na woote dialogue def amnistie ñu mu rey yëpp ñoo ñu perte seen bakkan yéen ngeen dem toog waa ñii dee nag duñ koy def ah ñii dee naka lañ koy def il faut que ñu bàyyi yi nga xam ne moo fi am li ma am pour wax sénégalais mooy gis ngeen F24 bi ak F25 bi ñu teg nii ay kuréel yi jënd pour nelawal ñi ñoom ñëpp ñi ngi ànd ak Macky Sall

Euh, euh, mardi. Mais pourquoi ça hein? Pourquoi ça hein? Nous l'olu di am est-ce que nous parlons pour le pour pour pour sénégalais est-ce que nous parlons pour xeexal Sénégalais Qui comprend comprendre cette stratégie comprendre il faut ñu wax ko quoi

Euh, euh, euh, donc andi sénégalais yi andi problème pour sénégalais sénégalais nañ ko moytu quoi ñun xeex bu ñu ni dañu bëgg a ak Macky wax deug ni dañu bëgg a ak Macky Sall loolu lañ quoi ñi li parce que li ñu nekk ni ñom li def dara ci dara quoi li du li du lii wax dëgg yàlla du xeex quoi waaw du xeex parce que nekk ci réew yow yaa ngi xeex suba ngoon guddi bëccëg yow yaa ngi xeex suba ngoon guddi bëccëg yow ñii di xeex ñii di la gàllankoor ñii di xeex ñii di la gàllankoor pour la dañu wax nit ñi lu am rek. nañ wax ñi ñi la am parce que lii moom wax dëgg yàlla du xeex quoi waaw koo ci yaakaar ku ne mu ngi lay nelawal koo ci yaakaar ku ne mu ngi lay nelawal koo ci yaakaar ne mu ngi lay nelawal bu lii lay wax bu ëllëgee mu dem jàkkaarloo bu guddee mu dem jàkkaarloo ku Macky Sall ñoom ñëpp ci loolu lañuy dox ci la ñuy dox ñoom ñëpp ci loolu la dox ñoom ñëpp laa wax ci ñoom lañuy dox waaye ñooñu ñëpp ci la ñuy dox na sénégalais xol suñu nañu xalaat suñu bopp wax dëgg la xex bi nañu xalaat suñu bopp bu fekkee bëgg nañu euh, euh suñu suñu réew mi bu dé bëgg nañ euh bëgg nañu dog mu njaam man yaakaaruma ko ci ñi quoi wax dëgg yàlla yaakaaruma ko ci gisuma ko ci F24 gisuma ko ci F25 légui da ñun diaspora ñun ñoo mun jël suñu responsabilité bu fekkee bëgg nañu xex way ben Youssouf ça va bu fekkee bëgg nañu xex loolu la quoi alors di wax ne Ousmane Sonko waxul laajul kenn dialogue Macky moo dem dugal boppam ci impasse ëlbati ne day dialogue teg amnistie prépare nañ loi bi ba dugal ko waa annus boobu may samp laaj waa ñii dee nag lu ñu leen def kon Sénégal léegi ku ci nekk da ngay ñëw rek da ngay ñëw gouverner ba mu neex la nga rey ba doyal nga war a dem def si dem sa yoon la nga def ci ñaaw tëf yëpp mu nul loolu la ko non léegi li ma am pour ñaan Sénégal yi mooy dañu xoolaat suñu bopp ñun ñëpp bu fekkente nii la Macky Sall demagul quoi mu ngi fii loolu laa am lu ma leen di wax Facebook merci.